magal gi laa leen di xibaar yéen xamul te di xibaar te nara di fa siyaar ngir jëmi Ahmadul Mbakke aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi safoo de fii ci seen chaîne Ndindy Actu chaîne buy taxawal Xaadimal Moustapha noo leen di ziyaare bu baax a baax di leen masawu ci coonoy màggal gi waaye di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu gi ak ànd gi ngeen gi ngeen di ànd ak ñun di ñu gunge saa su nekk ci programme Ndindy Actu yi. yéen a ngi gis pèlerin yi ñu ngi romb partout di dem ak dikk ñi ñëw ba pare installé wu ba pare ñeneen ñaa ngi ci yoon wi di ñëw yegg see gunu waaye ñu di leen di dalal si jàmm euh, ndax xam nañ ne voyage bi metti na. xat-xat yi bari nañ waaye malgré tout Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul moo leen ko jaral lii nag euh, ndam la sag la waaye ndamu lislaam la sagul lislaam la boo xamante ne jullit yëpp ko bokk di ko féete euh, waaye àddina sax laay wax ñoo ko bokk di ko féete du ni kese murit yi kese ñoom ñoo ko moom ndax mun nañ wax ne lii bokk na ci liy mandargaal indépendance indépendance u lislaam fii ci réew mi wala boog réewum Sénégal ñu ngi nii taxaw ci mbedd mi malgré tout mel na ni asamaan si sax neexul day xaw di taw waaye lépp ci bëgg a liggéeyal Sëñ Tuuba waaye lépp ci taxaw bésu sant gi nga xamante ne Sëñ Tuuba moom moo ko woote ñun ñëpp ñu bokk euh, jël oto yi ñi dugg ci sareet yeeg yëpp li ci aju bépp waruwaay boo xamante ni yaakaar na ne bu ko jëlee mën naa àggi Tuuba malgré problème yi nga xamante ne ñoom ñoo posé wu yëpp di pandémie bi par exemple nga xamante ne moom moo lambe réew mi pendant presque cinq mois kenn demut kenn dikkut kenn defut dara Sëñ Tuubaa woote ñu ne dana am ak du am bés baa ngi nii daa mel ni l'histoire a donné raison ñëpp ñëw nañ tey jii nii teew fii ci Touba ñëpp ñëw nañ santale ji san sante si euh, jàppale ji Sëñ Touba ci cib cant ci cib cant 18 safar bi nga xamante ne moom moo ko woote kon noonu leen di jaajëfal bu baax di leen naan ngeen topp ñu bu baax a baax ci suñu programme bi ñu dugg ci biir xool ana naka la pèlerin yi ñëwee ak yan réaction lañ am par rapport ak bés bi nga xamante ne moom moo fi taxaw ñu am comme thème nag euh, le Magal de ba un événement particulier malgré la pandémie kon maag sama caméraman yi ñu daw dugg si biir xool yi ba xam ban réaction ak ban jàngat la ci pèlerin yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew am من بارزني برازما يبارز المنتقما بارزما إذا طلبت من إلهي جلبا وإن سربت من إلهي سلبا براني باغي من الأمراض وكب من أنكر بامترادي لو سكوري على العيادي abdan xadiman faas bil ayaat loolu nag dañ ko def addi suñ Tuubaa waaw ah, màggal gi moom ni ko gisee moom macha allah waaw lépp loo xam ne ni waa ko docteur digle nañ ko def nañ ko si jàmm ak salaam waaw macha allah yal na yàlla xeeb doole daal. am ngeen ci mbégte bu baax a baax a baax. waaw sant yàlla am nañ si mbégte bu baax a baax a baax waaw. sëñ Bamba moom noo leen koy yëgee yéen ñi nga xamante ne ay taalibe ngeen ñëw fii ba Touba ndax yëg-yëg gi ngeen am ci moom. sëñ Bamba de yëg-yëg gi moom am na doole trop. yëg-yëg gi moom fuñ ko fuñ ko foo ko natt rek weesu na foofu waaw xanaa dolli di koy sant di koy gërëm rek waaw. sëñ bi noo ngi lay jaajëfal bu baax di la kontaane. noo ngi lay ziar bu baax ñu ngi delloo ziar bu baax. waaw ñu ngi koy dund bu baax a baax. màggal comme d'habitude rek neex au contraire sax bu ren ji dafa gën a neex waaw nag gars yi moom ñëpp pas-pas lañ ciy demee ak yëg-yëg ci sëñ bi ni ñuy dundee sëñ bi moom dafa c'est mënoo ko natt daal moo tax gars yi moom dañuy demeex seen pas-pas rek. malgré kon korona bi daa mel ni ñëpp wuy si nañ. waaw daanaka ñëpp wuy si nañ de ñi gëm sëñ bi dëgg wuy si nañu waaw ñi gëm sëñ bi dëgg moom wuy si nañu. corona gi mbindeef la comme ñun rek comme lu ko sëñ Mountakha waxee rek daa mission bu mu ñëw pour dox si ko bu paree rek incha allah rabbi dina dem. waaw ah, mbaa yéen a ngi jëfee ndigal yu nga xamante ne moom sëñ bi moo ko joxe rek ñu ngi jëfe ndigal yi muy takk masque waaw mi ngi nii masque yi moom c'est obligatoire dañ ko war a takk ndax respecté ndigal gi léegi looy wax ndigalu sëñ Muntaxa moom jëfe la tudd jëfe la sant waaw léegi looy wax ñi nga xamante ne ñoom masque yi moom buñ jógee ci jima ji rek ñoom sànni nañ ko ah ñoom de li leen di wax mooy masque yi ki ñu ko jox ki ñu wax ñu takk masque yi moo fi toogal seen Tuuba te ku fi toog a seen lépp lu ñu wax dañ ko lépp lu ñu wax dañ ko war a jëfe. jóge pour ñëw Touba. Dakar Dakar Dakar. Dakar waaw. Euh, mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. neexaay bi. ma ne na woon ci neexaay jàmm. ñu ñëw. waaw ziar ba pare. waaw gudd fan ak ku rek. neex rek waaw waaw sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba rek waaw waaw waaw waaw waaw yéen a ngi moytu feebar bi rek waaw ah, moytu nañu xoolal waaw yéen a waaw waaw jërëjëf maam noo ngi leen di siyaare bu baax jërëjëf magal gi waaw waaw tawfeex baax a baax dama nag am na ñoo xam ne ñëwuñu màggal de war na sëñ Touba sàcc man dañoo sàcc sama portable man sama passe retour yëpp la ñu sàcc barki Serigne Touba waaw maa koy sant bu baax xam naa li la gënoon ci man quoi waaw di sante borom bi yaakaar naa nag am lu raw portable barki Serigne Touba mi waaw mu demee nii maam waaw corona bi ni moo waral lii yëpp tamit quoi métti bi nii rek waaw man moom tàkkuma waaw waaw yoon la sax yoon la sax ñuy tàkk la sax waaw nañ ko tàkk sax nañ kese. non lu ma leen di wax moom mbaay lu sëñ bi digal rek la ñuy taxawal rek tax mag si rek respecté lu ñu jot wax rek raxasu ba seet <laughs> wala ñu jéem moo moytu yeneen affaire rek. waaw loolu laa am lu may wax quoi man. màggal gaangoog euh, murit ñaangoog te ku ne murit wax màggal ku wax màggal wax ndigal ku wax ndigal ne jëfe kon boog euh, xanaa ñu waxati ci rek ndax dañ ciy waxati euh, ndigal ji wàcc na mooy nañ màggal si ñëw nañ màggal si waaye dafa am leneen lum àndal muy takk maska am am zel di ko doxe saytu ko bu baax a baax Euh, nga mën a protéger sa bopp ci feebar bi waaye pro protéger waale say say morom euh, ba euh, ni gi ni bëggoon bëgg nañ buñ fi jógee tey corona bi ñun ñëpp ñu ànd jële ko fi ba dootuñ ko déggati fenn sëñ Tuuba ñëwati na wonewaat na boppam ci beneen anam kon noo ngi ziyaarewaat ñëpp di bëggewaat ñëpp seen seen Ndindy Actu seen bu taxawal Xaadimal Moustapha moo teewoon ci jima ji doon leen defal reportage ngeen àndoon ak sëriñ daaw Daouda Faye ci micro bi waaye ci caméra bi ki leen koy defal ba ngeen mën koo gis mooy Serigne Malick Fadal Fall noo leen di ziyaare bu baax a baax di leen bëggee yéen ñi nga xamante ne yéenay safoo di wéy ak programme mu Ndindy Actu yi noo leen di ziyaare bu baax a baax. magal gi te di xibaar. te nara dem di fa siyaar ngir jëmi Ahmadul